fm demal leen ca mayaak jox na dëkku soxna aji saar soxna aminata gujaa bi jël gaal wutali fa ñoom waxtaan ak njaboot gi ku ne ak na nga gisee maam ja ba ci ndijaay ya ñu teewlu reportage bi poussière bi bëri loolu village bu Maya nag tekk tekkaaral la ñu fa nemmeeku foofee nag la aji saar bi nga xam ni moom moo jiñ Ousmane Sonko ni daf ko violé yaroo maamam bi nga xam ni nag moom moo ko yar dalal ñu kii ci këram ci gis-gis nag li xew daf ko metti loolu ndax déggatul gisatul ki nga xam ne moom moo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 loo xam ne rafetul dafa ñaaw si déggin comme nag affaire gi dem na ba ci yoon nañ ko bàyyi si loxo yoon rek. moom nag xale bu jigéen bi nga xam ne ab masteuse la ginnaaw bu mu jàngee école primaire ci Maya ci Jirnda la ko fa euh, mu jël xale bu ndaw war koo loo xam te mag moo ko war a liggéey waaye li coow bi bëri bëri yëpp aji di mag ci papaam di wax ne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 da ngeen di abonné fii ci Tawfekh Production ngeen mën a jot moo leen vidéo boo xam ne dugal nañ ko